te malheureusement it loolu institution yi fi gënoon nekk gën koy dëgëral ñoo ngi bàyyi seen sas ci ci ci ci fànn googu la tey jii soo départoon fii ni kat xaaral ma dem barab sàngam ci dëkki diine yi damay dem seeti kilifa ga mën naa du aju ci kilifa ga de waaye ña koy wër la très souvent boo déparee ni ak si salaamaaleykum nuyu mbërum làmb mi gën a mag ci réew mi ni salaamaaleykum nuyoo woykat bi daq woy ci réew mi ni salaamaaleykum nuyoo acteur politique bi ñi ci ñi ci gën a siiw ni salaamaaleykum nuyoo yaw la yaay mujj àgg ci sëñ bi bu dee da nga àgg ci moom pour lan parce ñii ma lay wax ñëpp bu ñu génnee kenn ku ci nekk da nga fa mën a bàyyi weccet ci gaay yi fa nekk noonu léegi loolu xale yi koy gis nii dafa am analyse yoo xam ne ñoo ngi koy def ils se disent que ni mais kon finalement yàlla ji ñuy woo ñu koy wuti sax am na lu ko gën mooy wuti xaalis parce que boo wutee xaalis fi ne da nga bokk société bi tey ëllëg moom ëllëg yàlla la deewaguñu bu ñu deewee ku nekk la nga dem gis noo amee rek baax na noo amee baax na finalement loolu lañu indil noo amee baax na loolu la indi fi fi ma bëgg terminer rek mooy sa diggante ak kilifa tedd gi nekk Touba am nga bokk nga si raar kilifa yi nga xamante ne am nañ benn proximité bi ak moom maanaam jege nañ ko ba for nañ ci wéy bay na sax bis bi fa Macky Sall doon dem yow gis na la recevoir na laataa Macky Sall doon doon doon fa ñëw waxtaanee ngeen du ma la laaj dañ ngi fa waxtaanee parce que xam naa ne doon dooñu ko wax mais nga ñëwal ma ci proximité boobu. waa xam nga sëriñ bi. rapport de confiance sëriñ Muntaxa moom wax dëgg yàlla euh, dañu euh, def ab diir. bi mu nekkee xalifa rek décembre deux mille dix huit dama fa dem ziyaare fekk booba mi ngi nekk ci benn fatu. ma fekk ko daaru Tanzil ay mbokk yu ma àndaloon ñu dem doon waxtaan booba ci ndoxum tuubaa meeg yooyu sax lañ doon waxtaan. damay am document bu ñu ko yóbbuloon ay xalaat yu ci amoon mu ni ma man daal yàgg na maa def ay xalaat ci fii waaye damaa am liggéey boo xam ne dama bëggoon nga euh, confier la ko teg ko sa loxo euh, xëñ na nam ko waxee it soxlawul ma koy wax fii ndax mm-hmm. ñun euh, bu ñu sañoon dañuy vivre effacé kenn duñu xam sax kenn duñu yëg alors mu wax ma loolu jox ma terme de référence yi nangam mag nanga ni li ma bëgg ngeen def ko it lii ak lii ak lii la ba boobaak léegi on a fait boo xam ne si it ci ndigalam un document de prospective sur 300 ans boo xam ne jébbal nañ ko ko yàggul dara mu jëm ci Touba mu jëm ci dëkk ba mu jëm ci yoon wi et cetera et cetera fan la war a jëm fii trois 300 ans yi li xam-xamu doomu aadama mën a mën a mën a maye. donc loolu moo waral bu yeneen amee ci réew mi it aw euh, ñu dem waxtaan ci ak moom effectivement lënd bi président gisee ak euh, sëñ Mountakha euh, ci guddi gi diggante tisbaar ak takkusaan waxtaan naa ci ak sëñ bi. waaye nag foofu laa ci mën a ndax njaboot la bu doon waxtaan ak kilifa. Macky Sall ñëwee ba dem après sëñ bi recevoir na la. waaw jeudi bi passé rek euh, dem naa fa gisee nañu waxtaan nañu waaw. mais mais fi ñu toll yow comme dialogue lañ toog di waxtaanee est-ce que yaa ngi def ay jéego ngir gis Macky Sall waxtaan ak moom euh, pour mbir mi tamit. Euh, mais bien sûr léegi damay saisir kon seen seen kii bi seen seen seen seen plateau bi. président bëgg naa toog ak yow waxtaan ak yow ci mbirum réew mi. ndax yaakaar naa ni ñun ñëpp sénégalais ñoo am responsabilité ci fexe jàppalante jàppale la aussi ba réew mi ni nga ko jote woon ci jàmm nga booy demit nga bàyyee ko ci jàmm te jàpp naa ni ce n'est pas trop tard 2029 bu la neexee nga del siwaat euh, fii lu fi jarat yi en tout cas ñuy dugal réew mi ci genn guuta gi gisuma ko ba tax na am na ci loo xam ni ci waxtaan rek lay jóge ngi fii jël avion sénégalais yi taal kérosène sénégalais yi def ci ay moyens yoo xam ne sénégalais yi ñoo ko moom dem ba Ukraine ngir man ni da ngay jubale loola nag fii la gën a yell ci senegal gi nga xam ni ay jii sa jëmm bu taxawee Sénégalais yépp sañ nañ ni fim mu ne ñoo ngi ci sa biir jëmm kon nag fii la gën a yelle ñoo ngi lay ñoo ngi sàkku ci loolu gisee boobu waxtaan ak yow ci réew mi ñun lu dul réew mi yitteeluñu faruñoo ma sëñ ma Demba faruñoo ma Sàmba sànq nii rek maa ngi koy ñoo ñoo ciy waxtaan fii ñun réew mi dama gis ni mbir mi fi am kenn ku ci nekk li ci sa responsabilité daan la ko duut ñu leen nii puisque nag waxtaan la yoo xam ne si ay kilifa lañ ciy waxtaanal ku ci ne ba ñu waxee ak yow la ñu wax ak yow foofa lay def suñu diggante ak yow ñun loolu lañ gisit noonu lañ gëmee waaye kuñ ci toogal koo mën a doon lañ jàpp ni loolu amoo ci ak amoo ci yeleef danañ la ko wax keneen kiit buñ toogee moom lan jàpp ni amu ci amu ci yeleef yi danañ ko ko wax te it duñu yem ci loolu waaye danañ leen wax suñu xalaat ci lii guute gi réew mi nar dugg nees ci mën a génne am na solo ma bàyyi la nga sa de la fin vraiment di am mbégte bu baax a baax ci dalal gi ngeen ñuy dalal euh, tey moom yëf fi sax dafa kii xam nga mbayeen moom dalale ab kii. dalale ab mbuubeen moom. <laughs> day na waar waaye daal maa ngi yaakaar rek ne xëy na waxtaan wi am na njariñ euh, am na loo xam ne mënees na ko jariñoo euh, fi ma tàmbale woon rek laay dellusiwaat ñun dañoo am responsabilité bu historique surtout nag la jeunesse man moom ak lu mën a xew mm-hmm. lu mu jaxasoo jaxasoo man askan wi lay féeteel rawatina ndaw ñi nga xam ne jàpp naa ni Euh, c'est une jeunesse désœuvrée waaye nag loolu désœuvrement boobu lu mu am am am amit bu mu tere ñu xam mukk ni réew mii ñoo ko war a defar loo war a defar nag bu ko yàq kon nañu xam ni ñun euh, défi bi nekk suñu kanam mooy war nanu yëkkati Sénégal d'ici trente ans yi ñu jëm nii mu bokk ci réew yi gën a kawe ci àdduna bi suñu xeet bokk ci xeet yi gën a tedd te gën a kawe ci àdduna bi loolu amel nañ ko histoire waaye ameel nañ ko suñu doom les générations futures daal lay woo ñëpp rawatina nag ndaw ñi compte tenu nag des appartenances ñi bokk ci mouvance présidentielle ñi bokk ci opposition ak ndaw yi politiqueul ñëpp mboole seen ñun ñëpp Sénégal rek moo ñu war a animé moo ñu war a ñor régime yi dañ fi jaar jàll waaye Sénégal dafay des loolu moo doon kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. message am na solo Ababacar Mboup ma bàyyi